cas de euh, Pape Djibril Fall et euh, Thierno Alassane Sall opposition bi Yewwi Wallu nee nañu on met les opposants devant leurs responsabilités mm par rapport à ce choix-là soit mm-hmm. d'être du côté de de, de Benno Bokk Yakaar ouais. wala du côté de l'opposition mm mais est-ce que loolu ça suffit hein? Euh, ce que opposition bi puisque dañu nar a dem ci ay jeu d'alliance groupe parlementaire et cetera est-ce que war ñu mën a dem vers Pape Djibril Fall et l'autre là même bu fekkee ne Euh, affirmé nañ euh, confirmé nañ wane nañu gën a nañ dëggal seen bokk ci opposition bi. non inscrit ñu gën oui non inscrit xam nga man. gis nga gis nga Abdou Khadre. Hmm. da ngay am fu nit da nga am fam boobu tolle tu es devant les faits y' a plus à réfléchir c' est A ou B. Hmm. nga li ma wax bokk na ci li gën a wàññi sama sama kii ci Pape Djibril Fall. parce que Pape Djibril Fall man ku naw naaw la ku ma bëgg la ku ma respecté wax naa ko fépp wax naa ko dégg na ko wax naa ko samay nit bind naa ko. bi mu ne day nekk député ñu njëkk a commandé na ko jaay jëf on a besoin dit ñu mel ne yow député ba foofu jàppe woon naa ko ni Pape Djibril Fall day dëggal boppam dëggal boppam mooy xam na système bi fi nekk yàgg na taxaw ŋàññi système boobu noonu xam nga bi hmm. am na benn courant bu fi mën a jële système boobu noonu am na benn booloo xam bu ñu ko booloo mu nekk ay jeunes benn courant de pensée yaa ngi dégg mën na fee jële lii di toroxal Sénégal te loolu la yàgg a ci plateau yi hmm. loolu la yàgg wax fu mu waxee waxam yëpp ça va va vers ça parce que voilà même courant de pensée bi la même tête yi la te bu leen jeunes yi gisoon ñoom ñu ànd ci benn say ñëpp xamoon nañ que ni lu ñu xàcc dóorandoo ko day daanu. Hmm. li ma mënul comprendre mooy naka la Pape Djibril Fall di valider lii yëpp et eh, idées yooyu yëpp ñu dem ba devant le choix mu ne day xotti beneen yoon man loolu ça m'a refroidi parce que je me suis dit que ni Pape Djibril Fall kon est-ce que question de. postam moom ak kiyam lay wër doonam moom moom jëmmam doonam ak li war a doon maanaam. un leadership personnel c'est xam fu dama déggoo la ma dama ne am na foo xam mm-hmm. ko pare. ko bëggoon ba tax leadership moom boobu a feeñ. Mm-hmm. ñooñu ñëpp ci courant de pensée nekk. lan la indiwaat lu war a xotti beneen yoon alors que moom lu mu doon wax lépp ci courant de pensée boobu la nekk te xamoon na kan fii ñu toll on n'a pas besoin de se disperser système bi fi nekk ñëpp xam nañ que day gaañ suñu askan. ñëpp xam nañ que ni système bi day toroxal suñu askan. mais être des non alignés est-ce du gën a dooleel démocratie au sein de l'hémicycle wala est-ce bu fekkee da nga war a liggéey pour askan wi forcément foo nga bokk yeewi wala wala. mais non de l'opposition. ni affaire yi configuré ni mbir yi configuré Sénégal. oui ñëw bokk ci l'opposition moo ngeen ñëw ngeen di ci l'opposition ngeen bokk ba ku leen ko jiiñoon sax mu jaral leen ngeen jooy na dañoo tuumaal may fàttali ka ni tuumaal bi kenn ah, tuumaal leen. xam nga gis nga nit. durant la campagne. gis nga nit. Uh-huh. da gore. mun naa sax Pape Diouf mu bokkul ci wax boobu noonu am na fi ñu fi taxaw jiiñ président Ousmane Sonko jiiñ ko ci kanamu caméra bi uh-huh. ne ko da ngaa tëgg combine bëre yow ak Macky Sall mu def conférence mu def euh, live leader génn daat ni live bi da doon faire semblant mais loolu mooy loolu mooy xotti intégrité wu président Ousmane Sonko ci kanam Sénégalais yi te pour ko intellectuel la loolu bi nga ko waxee loolu bi nga ko waxee loolu insulte la ci intégrité wu président soo Sonko ça ba dire que ni mu ngi waxanteeg Macky Sall et que combine nañ bëri pare mu ne léegi xaaral ma def benn genre live boo xam damay xaw a ñàngal nii est-ce que xam nga accusation boobu noonu mm-hmm. def nañ ko nit ñi demuñu jooy ci kanamu caméra yi dañ ñoo tooñ dañ ñoo yàqal te pourtant def nañ ko te biñ koy def mooy période bi nga xam ne ay jeunes ñu ngi dee ay xale ñu ngi dee ñu leen di rey on a perdu trois personnes période boobu noonu seen énergie bi yëpp waroon nekk ci dal ci kaw Macky Sall ñu wëlbati énergie bi di dal ci kaw di dal ci kaw euh, président Ousmane Sonko Pape Djibril Fall li ko nit ñi xamee woon yu mel noonu day jël position bu leer ci midi comme quoi que ni on ne doit pas tuer des gens un droit jamono ji xam ne engagé wu politique da jël position bu leer mais biñ ko joxee rajo dani ñu dem deewi noonu la ko interprété et intellectuellement parlant il sait que ni il trahit en disant ça ça n'a jamais été nañ dem deewi. est-ce que niñ ko war a déggee déggee nañ ko noonu nañ dem deewi la wax à la rajo duñ jël xale yi nañ bàyyi xale yi ñuy jël wala nañ dem deewi du ma ko wax kan kan ma wax nañ dem deewi mhm. da ngaa waroon yow bu fekkee que ne nee nga intellectuel ak nit bu honnête bi nga bi nga doon nga da nga naan mais c'était un droit de manifester lu tax ñu bañal leen ko ils étaient pas ça, ça ne représentait aucun danger. motif yi euh, autorité administrative joxe doyu leen woon. mais y avait pas de motif. il est où le rebelle. trouble à l'ordre hmm. jënd ci xar yi anam. ici yow procureur bi génn nan y a eu d'autres autres qui sont évaporés sur Dakar ils sont mais c'est quoi cette histoire il faut arrêter. Hmm. ñëpp lañ doon bañ mooy. manifestation de masse boobu noonu waneel doolee waneel le peuple et loolu la ñu doon bañ image boobu te image boobu jaral na leen rey trois personnes il faut arrêter. d' accord d' accord donc. Mhm. pour pour euh, pour wax que ni man déception yooyu la am ci moom n' empêche que je le respecte je sais que ni c' est un homme euh, c' est un homme bien c' est un homme mais après politiquement bi mu duggee ci politique ba léegi beneen kanam la commencé wane c' sa personne lui. est ce soxla beneen poste. c' est sa personne lui mhm. donc. loolu day day day loolu xam nga loolu day day day day day commencer ñu douter ci yow. Mhm. parce que yow tu parlais tu nous disais que tu étais désintéressé. Mhm. comprendre nga. Mhm. yërmande lañ doon gis ci yow ak ab taalibe boo xam se ni dafa dëddu. wax yi post ak wax yi maama musul nekk moom wax yi ñun la doon wax. mais léegi su ndee ba jëmmi jamono. oui su ndee ba jëmmi jamono. yow amoo benn passé politique bu war a bu la war a jox légitimité boobu nga xëy suba rek laaj benn affaire mais amoon de pensée bu la nit ñi xamee. kon yow li nit ñi doon xaar ci yow mooy sa courant de pensée boobu noonu nga ñëw développer ci sa sa sa désir politique. mais est-ce que teelu ñu wax euh, du moment où tàmbaleegul liggéeyam à l'Assemblée nationale tant tàmbaleegul wane luy taxawaayam à l'Assemblée nationale est-ce que ñu patient à son sujet jàpp naa dina fa def lu baax non foofu àggagun hmm. man def lu baax. mais man fi may waxee mooy. il a il a raté une occasion. da bëggoon ma affirmer clairement ne dafa bokk. de de courant de pensée bi mu yàgg défendre. pour man. beneen yoon bu mu bëgg a xotti dafa mel ne ñu ne la euh, nan laa la ko mën expliquer yoon bii fi nekk nii yoon bii fi nekk nga daan taxaw ci digg bi yoon bii di ko ŋàññi mais li nga doon wax yëpp ci yoon bii la jëm. Mm-hmm. comprendre nga li nga doon wax lépp ci nit ñi doon ko dégg ci at yi ba tax sax ñu nga am ci seen sympathie. parce que aussi doo doowoon ak politique nekkoon ni da ngaa def ay mbir nit ñi topp la ci. Mm-hmm. journaliste nga télé nga commencé toog di wax mais li nga doon wax lépp ci yoon bii la jëmoon. yoon bi bii ŋàññi nga leen sax ban ni yow da nga ñoo bañ da nangam sax lu ne wax nañ la ko mais léegi bu choix taxawee bu fekkee sa sa sa jëmm ji taxulaa jóg mhm. askan wi tax a jóg nga doon développé yoon wi nga xamante ni sa wax yépp ci yoon boobu la jëmoon li ma mënul comprendre mooy li tax nga def benn yoon boobu pour xàll beneen yoon ñi nekk ci yoon bi xanaa kon da nga leen di woo ci yoon bale alors que yow la nga doon wax lépp ci yoon mooy ñëpp dañoo war a sot mhm. muy journaliste intellectuel yi ñëpp dañoo war a sot mooy yaa système bu fi nekk amul benn intellectuel bu nekk ci dëkk bi bu xamul ak bu d'accordul que ni ce système là est corrompu d'accord que cette police ni mu war a doxee doxu ko mhm. que justice gendarmerie kaso beeg sàcckatu milliards yeeg alal jeeg ressources yi amul kenn ku fi nekk te yàlla may la xel te nga d'accord ci donc ay jeunes yu bëgg a changer la donne am pratiquement ñoo bokk sax booy yi leen bëggandoo mais ñooñu bu ñu defoon benn bloc dañ am toute leur chance pour jëlee fi sa système là bi gaañ suñu suñu suñu dëkk donc man j'ai pas compris ce choix là et ça m'a ça m'a par rapport ak man bët bi ma ko doon xoolee n'empêche que comme ni ma ko waxee je l'estime et njort naa ci moom comme quoi que ni par rapport ak euh, intervention yi mu yàgg dem ci ay sorties médiatiques am que bu demee à l'Assemblée aussi dina continuer euh, représenter représenter loolu noonu d'accord justement lan la ñu mën a xaar ci quatorzième législature bi ah mais changement radical parce qu'on a vu euh, ay têtes yu bees mhm. on a vu des gens yoo xam ne yàggoon nañu leen bëgg ci hémicycle boobu noonu on on voyait benn assemblée bu amul qualité. bu am xeex xuloo du ma député askan bi député parti la lu kële bëgg du ma léegi on pense avoir un débat élevé parce que bi fa Ousmane Sonko demee gis na le résultat. on a vu même ay discours yoo xam ne booy dañ koy télécharger seen téléphone yi et c' est ce qu'on attend des gens qui donnent qui yéegal niveau bi niveau affaire bi. et wane le travail de député du rek dem toog yëkkati ko voté. am na des problèmes yu am ci askan bi des lois yu ñu war a yu ñu war a yu ñu war a des réformes des mbir yoo xam ne on attend d'eux ñu ñëw proposer ko on attend d'eux ñu ñëw taxaw proposer dafa mel ni comme Guy Marius Sagna sa première sortie temps yi comme sa deuxième sortie dafa ñëw bëreet mu dem assemblée mu dem mu dem euh, comment on les appelle là où donne les visas là mm-hmm. mu dem ne leen mais je peux pas comprendre seen comportement ak les sénégalais c'est-à-dire que ni level up ñu yégal level bi mooy nga défendre les sénégalais parce que nit ñi mënuñ ñëw suñu réew pour noppi di ñu manquer de respect mhm. nous ne sommes pas un petit pays nous sommes extrêmement riches si kaw bu ñu diriger nit ñu war a diriger mhm. donc waratuñ baisser la tête des gens viennent chez moom ñu di ñu def nu leen neex te du mujj fenn léegi nag loolu li ko war a xeex mooy comme Guy Sagna bi mu nekkee député boobu daawuñu ko fay dara du daan dégg Sénégal yi ci hôpital yi ñu leen def lii day jël tànkam dem su dégg Sénégal yi seen ay tool ñu leen def day dem tànkam loolu xaar de nos députés ñu yéegal level bi mu bañ a nekk ay affaire u yeewi askan bi wala APR mu nekk affaire au Sénégal que ces gens-là montrent au jeunes c'est quoi la politique c'est quoi mériter son salaire c'est quoi nga wan yóbbu euh, l'hono l'honorabilité bi ñu lay wax nga wane kan yi c'est mérité li mooy li moo tax ñu ñu woowee l'honorable euh, l'honorable mooy li moo tax ñu wane ko c'est ce qu'on attend des Barthélémy Dias c'est ce qu'on attend des euh, Guy Marius Sagna c'est ce qu'on attend des Pape Djibril Fall c'est ce qu'on attend de de de Thierno Alassane Sall d'accord d'accord on va parler de bon en attendant on laisse euh, l'installation en septembre mhm. xool yan premier acte le député yi di ak yaakaar bi nga xam ne yëpp euh, sénégalais yi ñu ngi koy nourrir actuellement mhm. euh, bëgg am envie gis changement mhm. bëgg am envie gis ay réformes yoo xam ne dañ ko enclenché pour am de nouvelles pistes yoo xam ne dina si gis en quelque sorte soppeeku ci nekkinu askan wi mais dama bëgg ñu wax ci beneen affaire parce que pratiquement temps ñu Euh, cette cette donne pratiquement jeex na. Mhm. mais sur un cas euh, par rapport à la justice. Mhm. cas Ousmane Diagne mi nga xam ne jàpp nañ ko. Mhm. ci partage bu mu defoon ci ni ñuy wax la une des journées détournées. te ñu doon si tudd Papito Kara. boobu aussi yaa ngi koy observer bu baax affaire boobu. te gàcce la loolu lu ñu ciy observé bu fi <laughs> loolu c'est-à-dire ni boo nekkee Sénégal da ngaa war a man c'est-à-dire que ñëwoon naa fi wax. su ma ñëwaatee day mën na li ma la waxoon. temps rek quoi. loolu kase la mm-hmm. ñëpp gàcce lañ ci am justice bi wane waat na ak ak ak ak tuuteem c'est le procureur qui s'est autosaisi waaw loolu mooy li gën a graaw mbir yi fi nekk yëpp